alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ci discours arab bu am solo bi nga xam ne wax na ko te wane ci martaba yonent bi ak bu Cheikh Tidiane bu Baye tudd ci ay melo yu wax ne jàmbu xeebu bii mu ngi ko jëlee ci Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ba man sax bi muy wax dama ne ko dama defoon ne bàyyi rek nga wax ne ci ngay wax sa yaadi ne ma daf koo génn génnul bàyyi bàyyi rek la wax ba tey sa yaadi moo wax dëgg ndax jikko yu baax yi lu ngeen gis ci ñun baa ngeen dégg ko mottali li bàyyi doon def ci lu baax rek la waaye ñun newuñ fi ñun xamuñ ñu ngi sant yàlla ci loolu <coughs> ci kaw loolu maa ngi koy gërëm maa ngi fàttaliku rek benn xissa boo xam ne bàyyi moo ñu ko nettali woon mu ne góor ga dafa dem jënd saako ceeb 100 kilo teg ko ci watiiru fas indi buntu këram béréb ko mu daanu mu dugg ci kër gi oo doom ji ne ko kaay jàppale ma ma dugal saako bi mu ne góor gi jàpp fii xale bi jàpp fii xale bi ne ko waaye yow bàyyi yow jàppoo dara yëkkatil yaa ngi watati rek li nga jàpp fi nga jàpp nga watati rek ne góor gi ne ko man maa jàpp fii maa jàpp foofu ndax ci sama doole ji nga génnee kon maa jàpp fii maa jàpp foofu man nag ñun itam bàyyi moo jàpp fii moo jàpp foofu loolu rek la loolu rek la tuuñ ay doom ay taalibe lañ loolu la ñuy puukarewoo loolu ñuy tiitaroo te mooy suñ njëriñ mooy suñ tiitar mooy suñ sutura mooy suñ lépp kon nag na ngeen góorgóorlu yéen itam ci njaboot ak baay gi doomam yi taalibe ci muqaddami baay yi muqaddami nag ñi fanaan bëri nañ trop tubarkal dëgg yàlla la ma nee na dara lu rëy xam na fi mën na ba mu ba laa yëg lu dugg ci man loo xam ne jox baay alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu mboolem ku fi nekk te di siyaare ñëpp di wax ci làmmiñu sama mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo bokk ak man pay bi tuddee leen ay muxaddam ci tànn bu ngeen ma tànn ma di ci wax maa ngi leen ciy gërëm ndax du nekk man ngeen ma cee wuutu ci xanam bu nekk te gën ma koy rafetle kon bu ngeen ma ko joxee loolu danaa leen ko gërëmee <coughs> ñu wax ci wàllu yonent bi sallallahu alayhi wa bay aadi waxal nañu ci loo xam ne buñ fi bayee ko di ko seet di ko seetantal mën nañ cee dund ba ilaa abadil abadina te du jeex njëriñ la du dagg waaye ñu wax ne yàlla bi mu xamee moom daal te xamalut yónnentam kenn xamut ko bi mu bëggee ñu xam ko wala mu bëgg a xamle boppam la xamal yonent bi sallallahu alayhi wa yonent bi moo xoo yi ñu ñëw mu gindi leen jëmee leen ca yàlla pour ñu xam yàlla kon jaam yi bu ñu xamee yàlla ñu ngi ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye yonent bi diit li muy dund xam lehut boppam kon bu fi baxee koo te kenn dikkut xamal ñu yonent bi kon daraja ji diine lislaam xam ñi ci nekk duñ xam kan moo leen ko jox kon ki leen xamal ki xam ne moo leen xamal diina kooku it ci jotaay bi xam na ci cër buñ ko war a tudd yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñim dëkkootoon kenn xamut ko ca ndere boobu xanaa boobu bu fekkee am na ñu ko ca xam ñu tuuti rek la waaye buñ seetloo comme bay aabi wax na ci wàllu siire yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bor boobu xamatuma man lu ma ci mën a wax ndax li wax mooy jàng mooy xam-xam moo di jëmme xam-xam wax na ci ba matal waaye waxtaanee baatin ci yonent bi bokk na ci gàmm gi ndax Seydi Maahi wax na ko wax na lu lu demee noonu yonentub saahir téere yi nga xam ne ci lañ bind ay jikkoom ku ko jàng danga ko xam li ci bàyyi bind doy na ci xam ku ko xam yaa xam lu wét ku ko xamut loo xam bu dikkee ba ci boobaay bi ci nga soog di xamee na nga xam wét na wala wétut kon wax ji jeex na ci boor boobu Cheikh Tidiane moo dikk joxoñ ñi yonent bi ni ñu yonent bi joxoñee yàlla moom itam mu dikk joxoñ ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye Cheikh Tidiane it bu fekkoon ne bi mu ñu joxoñee yonent bi xamal ñu kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu fi bayee ko dafa dem rek kenn dikk xamalul ñu Cheikh Tidiane kon duñ xam Cheikh Tidiane mi nga xam ne moo ñu xamal yonent bi góor gële ma jàkkaarleet ci fépp moom moo di ko xamal ñu soxna Ahmada Tijaani Sharif radiyallahu taala anhu ba pare nëbbu ñu boppam dem kon ñun jotaay bii tuuti ko rek ma bëgg cee wax daal lu mel ni lu Uwaysul Qarani waxoon Seydina Omar ibn al-Khattab ak Seydina Aliyin nañ fàttali ci taarix ne yonent bi gannaaw fàddoo Seydina Omar ak Seydina Ali dañ xaji Màkka bañ demee ca taxawaay xarafa ñu gise faak waaju buram xam-xam bu rëy ñu ko waysul xaram yi fekk yonent bi tegtale na kan mooy uwaysu ak ku ko gis daal nag ma ko nayul gaañe bi ñaajee ñu gis daal na yonent bi waxee woon rek mu melee ko njool la moo xam ne mii nii jëmm ja rëyut yëre yam sol duhut luñ mën a xàmmee ne taar la ak mbàjj gu xonq la la xasoor bopp ba daal di bëri karaw mu xam fii tuuti lu mel ne akab daaf daaf ñu koy wax maraan ba nga ko defee Seydina Omar gis ko na ko xale yi waa ji ñu yonent bi daan tegtal de toppaan bu fekkoon ne xëduna njanaaw la mel na mbagg ma ma nga ca basra yaman man daal dama yaakaar na waa jëla Seydina Ali daal di ko xool ne ko ka annahu ko dem seeti Seydina Omar daal di mu daal di dem fekk waa ba mu déggee wax jooju daf leen jox gannaaw Seydina Ali daal di dem wër ca gannaam jàkkaarleeg moom ne ko bu fekkee yow la de ñu ngi laay nuyu mu ne leen yéen itam bu fekkee yéen la de maa ngi leen di delloo nuyoo ñu xam ne bon kii moom la de waaye ñoom tam de ñoom la ñu daldi dajee ci seen waxtaan wa mu leen di jaale yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ci moom ay ngëneel yoo xam ne yii ne yu rëy rëy rëy rëy la ba mu yàgg muy xaabaabal ba àgg ci ne yéen ak li ngeen dëkkoon ak moom lu ngeen jegaante jegaante moom taxu sax ngeen xam yónnante bi Seydina Omar tiit fàtte boppam fa gëddënam ba ne ko walaw ibnu abi quhaafata même Babacar doomi abi quhaafa sax xamul yónnante bi mu ne ko walaaye abi quhaafata doomam ji lan yaraw min muhammadin illa sillahu gisut ci yónnante bi lu dul ker ga rek takk ndeer ba rek la gis kon yonent boobu noonu uwaysul qarni yi doon wax ak bi bay aadi doon gàmmoo dafa mel ni benn la waaye du hut benn bi bay aadi doon gàmmoo mooy yonent bi dëkkoon madina màkka ak madina di doomi abdulaay waaye yonent bi uwaysul qarni yi doon wax mooy bi juddoo tey ba ñeseen gii nii tëdd fii nii ci midina gii nii xaqiqatan ndax lan yaraa min muhammadin illa silluhu te Ababacar a nga jàkkaarloo jëmmi ibnu Abdullahi kon sillu bi dafa am lu nekk ci biir muhammad moomu bu fekkee ne jamono man na kon soxna Ahmadu Tidiane moo ñu ko jujjal soxna Ahmadu Tidiane moo ko junjal moo dikk fekk ñu def téere yu bëri ci taarixu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dalee ca leer ga ba biñ koy def ci biit suuf bind nañ lépp mu dikk ne man de bëgg naa jàngale yonent boo xam ne bii nii kenn bindagut ko ci téereem bi ñu ne ko gon séex noo koy defee mu ne damay dikke rek allahumma salli wa sallim hayni rahmati ar rabbaniyati wal yaquutati l mutahaqiqati l haitati bi markasi l wal mahani wa nuuri akwaani l mutakawinati al adamiyi saahibil haq rabbani kooku gaa ñi bindaale wuñ ko de nuuri l akwaani l kooku gaa binduñ ko de kooku gaa binduñ ko xamuñ ko sax ba du ko bind Cheikh moo ko xam moo ko mën a moo ko mën a wax. kooku boo ko xamut ñu ne ko Cheikh yow li nga wax xamuñ ko de leer gi soppeeku nit gannaaw bu ko Cheikh Tidiane waxee ba ñu bàyyi di dajee sukkayri ju kenn waxutat ko kenn kenn waxat ko kenn sukkayri ju rek moo gis ak janal bàyyi na ko yow yaa di leer gi nga xam ne fa bàyyi ko ca kaw rek di ko soppeeku di jëmm rek di doomi Abdoulaye ak kon mooy kële mooy kii mu dëkka winati al adami saabil xaqi rabani albarqi lastain bi musooni larbaahil maali at li kulli mutaharidin minal boxóori wala waan yi xam nga Muhammad moomu gaañu xamuñ ko ba tey gaañu xamuñ buñ ko même ba tey Babacar jàkkarlewut ak Muhammad moomu déedéet déedéet jàkkarlewut ak moom la paase woon fekk ko xamut ko lii dikk gannaawam fekkoon ko lim tolloot xam ko ba mu kon mënta xam li kulli mutaharridin minal bahori wal awaani mun koo xam moo tax Uways wax ko na ko xamuloo Muhammad yow ibnu Abdullahi nga xam rek waaye Muhammad li dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg des na ñu ne ko seex waxal mu ñu leer mu ne moo ñoori kalaamee la sii ma laxta kawnikal haita bi amkinatil makani kooku Ababacar mënut koy gis ndax bu ko gisee dootu fa nekk ñun ñu ko bàyyi woon biñ koy gis nekkuñ fa ñu ne ko gën ñooy leeralal mu ne allahumma salli wa sallim ala talhatil haqq bil haqq kansil ahsan ibadatika yow xaarif yow maj sóob min ka jógee ko ca yàlla ilayka jëm ci yow ehaatati nóori mu talsam sallallahu alayhi wa ala alihi salaatan tuarifuna bi yahu kon Muhammad moomu nañ waxtaan tuuti xam nga Seex Tijaan bi mu waxee salli wa sallim ala ayni rahmati loolu képp kuy borom yërmande rek da ngay foog ne yow boole nañ la ci da foog ne boole nañ la ci waaw da foog ne yow boole nañ la ci waaye boo demee bi ci biir rek da nga xam ne xam na ko ko tax di wax waaw fi mu ko seetantalee mooy dafa wax. waaye li rëmmati wax rabbaaniyati yonent bi rekk ak yàlla lépp li ci def ak yonent bi la mboolem lu des diggante moom yonent la waaye yonent bi moom dong ak yàlla kon ku duwut yonent bi bu mu waxee ay ni rahmati da nga foog ne ci nga bokk waaye bu mu waxee rabbaaniyati rek da nga xam ne bokk kon yow da ngay dem xaar si tamaatul xaq bil xaqi foofu nga war a duggee si waaw foofu nga war a duggee si place boobu lañ la placé waaye Cheikh Tidiane xalaatul la ci palanwiir bii nii ndax lépp mu wax nii yëpp faydul anwaar rek la leer rek la fay tudd te leer bi nga xam ne nag mooy jëmm di juree koo ca yàlla mooy xaqiqatul muhammadiya ci biir xaqiqatul muhammadiya ci lañ génnee yeneen xaqaa'iq yi nga xam ne yii nii moom laay wax xuruusul xaqaa'iq ci biir xuruusul xaqaa'iq ci la gaañu commencé nag di génn dama génn dal fii picc dal fële gañ dal fii lu nekk dal fële génn ci loolu yëpp mooy xaroosul xaqaare ci dellu ci xaynil mahaarifi dem dellu ji ci xaynil mahaarifi jëmmi ja xam ne ji ne mooy de borom xam jëmmi borom xam nag bu ko settu jaan waxee tuddee ko yonent bi buñ dikkee dañ koy fekk muy jëmmi bàyyi radiyallahu taala anhu xam nga suraat yëpp baax nañ yoon bu nekkee dana xàgg ca dëkk waaye nag taame les tam faydatu baay bi rek ko def nag xàgg ca doo def benn accident ci yoon wi doo mooy yoon wi doo mooy dëkk bi itam jaari ci digg dëkk yàlla ba rek romb fi lii yëpp siraat loolu mooy siraat a taame al asxam xàggale la ci yàlla te nga nekk ci biir nit ñi bàyyi rek ko koy def teg la ci yoon ngay dox di romb nit ñi di romb bindeef yi te nekk ci seen biit di romb par maqama te nekk ci seen biit di romb par maqama nekk ci seen biit di romb par maqama nekk ci seen biit ba àgg yàlla bàyyi rek ko def maanaam rañaanee la nga jaat ci xasamaan yi te doo jóg ci sa lal bi doo jóg ci diggante jàkka ji ak kër gi nan mu tuddal la juróom-ñaari asamaan tuddal la juróom-ñaari intu yi ci nekk xam ngeen la xewam